bi ñu am indépendance booba nun ay booy lañ ma déggoon benn way bi ñu fa doon way boo ma ko doon dégg nag damay kontaan am na moment dama si dama dama ko doon euh, parce que man daanaa def carrelage daanaa def maçonnerie mais ku ma xam si chantier xam nga ne daanaa way mu yéen waa Sénégal bokk leen ndey bokk baay ñu bay suña bay saaña xoolal